li li compliqué foofu mooy Mame Birame wax na ko sànq ah y' a plusieurs fois yoo xam ne. Moustapha y' a beaucoup de commentaires qui disent que signal dañ ko coupé de. nañ ko dem dem na si canal lu xew y' a y' a beaucoup qui m' envoie ces ces man. xaw xaw ma ah, moom lii moom lii moom wax dëgg yàlla la li moom. votre signal <laughs> euh, votre signal est parti am na ku ma ko wax léegi nii de man. <laughs> je sais pas franchement man kay fii laa jéeg saa gis sama moniteur bi gisatuma ci euh, di circuler image bi taxaw. Euh, mu paraître ma bizarre mais euh, commentaire yi may gis votre signal est coupé laay gis ak yeneen ak yeneen bon. waa léegi euh, nañ waa léegi la la question qu'on doit se poser ñun ñëpp. Mhm. mooy depuis midi ba léegi ñuy def cette édition spéciale là. lan moo fi jaar wala lan lañ fi wax. lu war a lu war a tax signal bi dem. enfin j' espère vraiment que ni c' est pas ça parce que là je sais pas franchement je je sais pas. non dañu yàggale suñu waxtaan un de mes confrères qui message ne ma euh, que se passe-t-il votre signal est parti. Euh, mm-hmm. pour dire pour être sincère je sais pas ce qui se passe. d'accord d'accord ñu ñu ñu ñu continuer peut-être dañ ci am ay information yu yu yu gën a yu gën a yu gën a leer. chambre administrative bi bu ñu si demee euh, ñoom waa PASTEF euh, est-ce que euh, jàpp nga ni Moustapha que am nañu chance pour que voilà ñu neena la boobu les décisions. je ne le je le pense pas parce que bari na yu fi yu fi yu fi jaar yu yu mel noonu. gaa yi dem joytu ko ci kanamu ci kanamu àttekat bi rarement ngay am ngay am raison donc moi je j'espère pas grand chose de ça. Mmh, mmh, mmh. Mame Birame euh, mm. bu ñu dissoudre parti bi di PASTEF Ousmane Sonko ñu tëj ko ci kaso élection présidentielle 2024 est-ce que dina safati boobu caf ka non xam nga euh, bu ñu demee Pamatar ba ñu ne euh, dañuy installer démocratie ñu ne ñëpp mu faut ñu choisir kenn koo xamante nii moom la ñu ne yow yaay jiite ñu jox ko tous les moyens pour moom mu am fu ñu yóbbu ñu ne kooku kat pour euh, tànn ko dañuy organiser ay élection yoo xamante ne nii euh, askan woowu ñooy xool ci ñii présenté wu kan lañ jàpp ne moo leen gën a euh, doy pour ñu dénk ko réew ma démocratie loolu la indi te boo gisee li tax mu gën a am sax ñu ne au lieu que doole di ko joxe maanaam comme la daan xew bu njëkk te xewtaay yi ci yenn pays africains yi maanaam ki ëpp doole mooy jiite ñu ne non nekkuñu ci loolu. ci démocratie la ñu nekk maanaam askan wi li nga xamante ne nii moom euh, mooy bëgg-bëggam lii yéeneem moom mooy lañ moom la ñuy teg ci kanam. Mm-hmm. mais bu nekkee loolu am na ñu jàpp nakat askan wi mooy tànn. bu boobaa warul nekk police wala gendarmerie. wala tribunal ñoom ñoo ñuy defal ab présélection maanaam am na ñoo xamante ne nii jàpp nañu nekkat kat ñii. sénégalais yi mën nañ leen a wóolu ji jiital leen police ak gendarmerie wala justice sax de manière générale am ay gàllankoor yoo xamante ni teg na ko ba kooku ñu ne mënul bokk ci élection euh, élection présidentielle. Oui. bu boobaa choix wu sénégalais yi mais mënatul nekk mënatul multiple. puisque dafa am au préalable après sélection xam nga loolu lañ doon wax ci euh, euh, li ñu tuddee parrainage. Oui. parce que bu nekkee ne yow. Euh, tey da nga teg système boo xamante ne nii 2012 il y avait eu combien 14 candidats. Mhm. loolu terewul sénégalais yi dem voté ji choisir ki nga xamante ne nii moom la ñu jàpp ne moo gën ci candidats yi mu nekkoon président Macky mu nekkoon Macky Sall te loolu indiwul mhm. pratiquement benn coow. Mhm. léegi bu ñu nee teg nañu parrainage ñu nekkat léegi deux mille dix neuf cinq candidats kese moo am. oui <laughs> mu nekk présélection maanaam sénégalais yi maa ngi dégg keroog Moustapha di joxe benn exemple bu pertinent. maanaam bu ñu la nee ñetti soxna yi tànn ci kenn muy sa jabar. nekkul ne dañ laa wax tànnal mais dañ laa tànnal ci ñetti ñooñu. <laughs> donc moo tax mais mais c'est ça bu nekkee sa choix mënul génn ci trois yooyu. c'est parce que dañu la tànnal déjà. en amont avant ngay tànn yow. am na benn choix déjà. Eh, am na benn choix déjà ñu ne nag démocratie àndul ak loolu. peuple bi nga xamante ni moo souverain. te ñu bind ko ci constitution bi. Mhm. wax ne askan wi kat bu ñu nee démocratie dañ koo teg pour moom la pour moom mu koy exercer pour moom mu koy jëfandikoo léegi ñu ne dem nañu ba askan woowu tey ki nga xamante ni moom lañ jàpp ne moom la gënoon a jox bopp. kooku kat bokkatul ci élection yi. Mhm. bu boobaa qu'est-ce qui va se passer dañuy mooy problème de légitimité bi ma doon teg sànq da gis ay nit ñoo xamante ni fal nañ leen ay élection mhm. mais taxul ñoo am légitimité parce que bu nekkee des taux de participation bi ça tourne autour de trente cinq trente six trente six pour cent euh, waaw mais léegi dangay ngay calculer ne sur cent personnes trente six ñoo dem voté ji sur cent personnes trente six ñoo dem voté ji mhm. ci trente six yooyu voté xëy na quinze yi ñoom ñoo votel président bi. Hmm. sur cent quinze sur cent. Hmm. kooku ban légitimité la am. d'accord. Hmm, di rassurer. il est légal oui. il est légal puisque ci ay élection la jaar. pour falu. mais légitimité est-ce que am na ko. bu ñuy wax légitimité mooy ñi ëpp ci askan wi. choisir la ne yow yaay nekk suñu président ñëpp ci askan wi. waxuma askan wi nekk 17 million benn million bi votel la. nga ne yow am nga légitimité boo xamante ne nii jàpp nga ne mën nga def lu la neex ci turu 17 millions de sénégalais yooyu loolu mënul ne. Mhm. Mhm, mhm. di rassurer ñu ñuy suivre ci page YouTube ak ñu doon seetaan ci euh, Walf TV que ni ñëwaat na euh, signal bi euh, finalement demul ay problème technique la woon rek. mais je crois <laughs> da nga ciy jàngat ñaari mbir rek. Uh-huh. bi ñu njëkk mooy surveiller gi Sénégalais yi di surveiller Walf parce que am na ñoo xam ne sax dara du xew dañuy dañuy dégg rek un événement am na. ñu naan. yàlla buñ coupé suñu signal bi déjà le fait de de de que Sénégal di xalaat loolu rek day wan intérêt bi nga xam ne moom lañ jox li ñuy def mm-hmm. mais également dafay poser beneen problème mooy comment se fait-il dans un pays normal une oui. démocratie normale un média comme comme Walfadjri s'il y a un événement si su fekkee dafa am lu xew ci réew mi ñuy tiit Mhm. mais mais y a, y a pas de euh, enfin dans une démocratie normale a pas d'avoir peur qu'un média fasse son travail mhm. parce que depuis ce ce ce matin ñoom Pierre-Edouard ñoo fi jiitu woon jóg ñun ñëw toog mais tout ce qui se dit ici c'est du factuel c'est simplement l'analyse des faits yi nga xam ne moom nekk devant nous y a pas un seul mot de trop enfin mmh. je mhm. pense euh, par rapport à ce que nous sommes en train de dire donc il faut euh, qu'on se rassure et qu'on continue à faire notre travail normalement quoi 14. absolument en tout cas daggaguñ ko bu nekkee ci seen i pexe la bokk aussi. bon non non bu ko bu ko bu ko kenn dagg on pour rien quoi on fait juste notre travail. alors alors may gis commentaire yi kenn ki nee na Walf di suudu euh, yéen a doon reetaan Sonko kenn ki ni vous rigolez mais vous êtes sur la liste en réalité. Euh, qu'est-ce qu'ils en fait euh, nit ñi kenn rigolé les gens ñi ngi def seen liggéey correctement ñi nga am ay analyses yu pertinentes donc il faut quand même les gens arrêtent du ñu jooy quand même du ñu ñu du ah. loo xamante ni. ñi ngi def seen liggéey correctement di euh, comme ni ñu koy yàgg di defee donc il faut que arrêter mm. alors euh, Georges Ndesta élection présidentielle la ñuy naan rendez-vous euh, benn ndit la ak li nga xamante ne mooy peuple mais nit kooku noonu ni ko Mame Birame waxee warul doon yarkatu ginaar warul doon menuisier warul doon benn étudiant wala benn bureaucrate mais koo xamante ni ku nit ñi xam la ku nit ñi ràññee la ci politique ak ci taxawaayam ba kooku noonu tey jii nit ñi dénk ko li nga xamante ni mooy seen na moom laa wax du doon simple menuisier wala bureaucrate boo xamante ni dafay doon toog di liggéey ay liggéeyam nekk ci occupation mais ku xamante ni sénégalais yi ràññee nañ ko bu baax a baax ci taxawaayam ba mu am benn légitimité populaire est-ce que bu ñu génnee Ousmane Sonko mi nga xamante ni bu doon génn monde bi